population bi nga xam ne mooy population sénégalaise bi bi nga xam ne jug nañu voté en masse gagné li nga xam ni moom mooy euh, élection yi ah, daal di jugee ci tàggoog euh, li ñuy woowee maanaam euh, bu mu bu mu nooteel bi voilà en fait askan wi yeweeku na maanaam ci maanaam tey jii nii ci injustice bi nga xam ne amoon na fi ndaw ñi kontaan nañu parce que liñ leen diggoon te waxuñu leen ko tey jii nii loolu noonu kii ñu yaakaar ni moom mooy président jomay fay pare na palais national dañoo fa dañoo fas yéene jug tey jii nii pour bale ko ah, en fait euh, euh, dañoo kontaan daal en fait kontaan naa mënu ma wax daal voilà voilà noonu la demee en fait daal population bi ah Diomaye ah Diomaye li ñuy xaar si moom moom mooy que gis population bi jug lépp ay jeunesse rek la jeunesse bi kese moom moo jug na jàppale jeunesse bi su jàppale jeunesse bi wutal leen emploi lim leen dig mu bañ a tas yaakaar daal waaw loolu daal laa xam ni waaw tey daal. maa ngi tudd maa la Dieye donc euh, yëg-yëg bi nga am tey ci euh, journée bi mooy contentement parce que aussi euh, dafa am li nga xam ni sénégalais yëpp dañ ko xaaroon tey muy maanaam changement bi nga xam ne depuis 1960 ba léegi dañ ko yàgg a rêvé nag loolu moo tax tey population sénégalaise mën nañ ni dañoo génn massivement malgré que ndëgg sarax yi nga xam ni parti au pouvoir defoon na ko pour ñu mën a mën a jeunesse bi mën a mën a voté mais gis nañu tey mag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon aussi Sénégal te aussi nga xam ne dañoo yàgg xeex pour indépendance Sénégal am ko tey ñooñu tey dañoo génn voté massivement pour mën a soutenir seen doom yi pour ñu génn ci li nga xam ne moom mooy métier bi nga xam ne Sénégal daf ko yàgg dund parce que aussi euh, lu ñu mën a wax rek moom mooy tey victoire bi population sénégalaise ñoom ñoo ko moom moo tax tey li ngeen gis nii tey warul bett kenn parce que dañ koo yàgg a yàgg cee xeex tey nag contentement la am di gis tey Sénégal nekk ci changement bi nga xam ne mën naa ne mun naa ne moom moo ma dugalaat tey Sénégal parce que man euh, def naa huit ans ci àll bi démb laa ñëw pour mun a fekk si vote yi pour mën a ñëw voter donc di kontaan ci loolu di kontaan ci population sénégalaise di jaajëfal Seydina Ousmane ko bi ñu permettre tey nga xam ne stratège la permettre ñu tey jox ñu Diomaye Faye nga xam ne ndëgg sarax bu nekk teg nañ ko ko pour mu mun a baña bokk ci ay élection waaye mu ne par la force Sénégal dina changé burul moom am na ay junni junni Sonko yu na ci ginnaaw donc contentement daal la am tey di jaajëfal sénégal yëpp di jaajëfal population Sénégal ak ñi nekk diaspora bi ak ñi nga xam ne mooy aussi panafricain yi nga xam ne ñoo nekk ci sous-région bi ak ñëpp ñu nekk ci àddina bi daal doon soutenir vraiment kontaan nañ élection lañ jëm léegi nag ni la ma demee résultat yi moom bettul kenn résultat yi kon donc bettul kenn lii du ay élection ay humiliation la ñi ñaakaroon ñoo jël deux ak premier sax kenn gisu leen fenn maanaam Sénégal maanaam taux de participation bi am mos am ci élection yi Sénégal dañoo génne massivement voté maanaam bu yemoon bu mbir yi sax gagné nañ ko waaw li ñuy xaar ci moom si bi xaar ci moom mooy mu liggéey réew mi ndax am nañ ci moom confiance te mën ne ñun du ñu for kon li ñu xaar ci moom muy liggéey te ñun ñun ñu ko def ñu ko fal danañ ànd ak moom liggéey la ko def incha allahu taala victoire bu éclatante xamoon nañ ne premier tour lañuy jaal xam ne waa ji moom Amadou Ba nekkul koo xam ne adversaire u Diomaye la woon Macky Sall moo ko doon teel noonu rek mais franchement parle ñun kontaan nañ ci Sonko kontaan nañ si Diomaye réew mi lii lañ soxla woon indépendance boo xam ne dañ koo daté depuis 1960 te mosuñu koo gis tey franchement parler Thiès waa ñoom ñëpp kontaan nañ mbon bi génn nañ ñu ñëpp kontaan nañ vraiment vive le Sénégal vive l'indépendance ñu ñëpp ci kaw sa kanam dafa metti boo yëpp a ngi bàyyi jàng boo yëpp a ngi bàyyi jàng dëkk bee bay poussière ñoom ñëpp na seen ngelaw nangu sonn nañ ci ñoom président xale révolution réew mi changé danoo sonn sonn nañ waaw dama ni waaw dama ni bi ma sante yàlla jël si yent bi nga xam ne yaa ngi mbiri yàlla yaa ngi dëkk dafa set wicc yàlla yàlla yaa suñu borom ba mu set wicc dëkk bi taw ñu war a bale ñun bàyyi nañu naar bi bàyyi nañ nelaw ba 10 heures léegi yow liggéey bàyyi nañ naar bi. bàyyi nañ sàcc. booy yi bay bàyyi sàcc. dañuy bàyyi dëkk bi. essence wàññeeku. waaw dund gi wàññeeku lépp neex. Thank